gën ak gën a foor du benn xamuloo ne si yi ñuy jàng moo leen di jàggi di ruur te duñ ko yëg gën ak gën a foor du benn ma joxe benn tegtal ki weerul ki wóorul weeru koor ba ñu ko guddi gi mooy guddi laylatul qadri mu naafi ndax dana am tuyaaba ja du am tus kon woor gi mooy tungam laylatul qadri gi pour mu mën a nekk فليلة القدر بمجن جنيفا توارج كي ويرل تا القرآن ني خير من ألف شهر تميل موا بو توتاليزي موي 83 عام جروم نيت فوكي ات اك نيت غاي وور با اكسي تي غودي ريك دالدي تي نافي نيان تي توروخلو تي كانم يالا غودي غي يالا جوخ كو بن نغينيل بو تاخ غا ام تويا باي جروم نيت فوكي ات اك نيت يالا لا سوب مو سق خف فوفو يالا لا سوب مو خف تي جوخ شيخ احمد تجاري صلاه الفاتحه kleine beetje dan gaat أكمل أقطاب الإيمان لا يمكن لهم tant Seyna bu Géey junne bi nga yegg si yónne yegg si na yàlla yàlla mosal ci ay jinne amin sunu góor gi ca Tiwaawan Seydi Aboubacar si ibnu Chahaj Malik nee na bu la kenn torpillé de nee na bu la kenn torpillé ba nga jox gannaaw tariqa bi kon ki ko dëg ma raw la bushree mbégte li aaqidi haadal wirdi ñeel na aji japp ji werdu cheikh salikihi, ci sobu ci tariqa bi matal charte yi ko man na la ko am tariqa bi ak jefe ga ak sellal ga na la da nga am ajaran ya ba ghayra mamnuni bu dul ko ci deg lu de motax ci tes bobu man tok ci ben kilifa bu am xam-xam mu ne ma dama ko wara raddu ma ko upp na def bu ko jox bayre mu ma lu ko upp nga ci man doy ci baye mag waa rek man ko dana ko ki ci mbore ba mu wéré te yow do ci wax moy dana won nit ñi ne dafa bew di wax waye teggu ko ci xam-xam te tariqa cheikh duñu saga ñom dañ nan yàlla neena na yonent bi neena ba toxale fi li ngay wax déglu len de yim wax yeb alquran la koy jinde wala hadith yonent bi mu wëlbatiku nak ba ko ci gën a jaaxal te gën ko cay jaaxal nee na sikar la ca sunna santaane mooy jublu penku te tiijaan yi dañuy géew ñi jëm ni ñi jëm ni ñi jëm ni mu ne loolu fuñ ko teg ma ne ko cheikh da la raw forme aljanna toogaayu saalu aljanna na mu mel moom la cheikh organisé ci wasifa xamuloo ni booy bu ñu gis sa loos da ngaa nekk àddina àjjana kenn du gis sa ndong mutaqabiliin forme toogaayu aljanna moom la Cheikh Ahmed Tidiane organisé ci wazifa bu ñuy gis sa ndong da ngaa nekk àddina aljanna ku fa toog kenn du gis sa ndong cheikh ne comme nag dañuy tudd ki nar a joxe aljanna nañu far wër mel na noo nga aljanna cheikh dafa raw ka ko raw déglul de mu wëlbatiku ne salaatul fatixi kenn moomu ko ba di ko maye ma ne ko foofu nga juumee ñi koy joxe mayewuñ ko talxiin lañ def wala fa déggul baat ba mu naan may ma werd waaye sama werd la sax talxiinul werdi te kooku rasulullahi moo ko jëkk a defal Seydina Ali te demal ci Tabarani talxiin la tariqa tijaaniya di def te yonent bee ko jëkk a defal sayidina aliyun ci laa ilaha illa allah sayidina aliyun moo ñëw ni sayidina muhammad digal ma nu may tudde yàlla allim nii kayfa adkuru llaha taala jàngal ma nu may tudde yàlla yonent bi ni tekk ba yàgg mu ni ko hal fiikum garibun ndax ku tumuranke ngi ci xam nga baat boobu moom la magi tariqa bi yoroon buñ dee bëgg a waxtaane tariqa bi ni ndax asamaan si niir a ngi ci te yonent bee ko jëkk a wax hal fiikum gharibun ndax ku ci bokku la ngi fi maanaam kuy door a tuub te jéggagul diine ji ali ni ko man rek a fi nekk mu ni ko gëmmal sidna ali gëmm fàtt ruus yonente bi ni ko qul laa ilaha illa allah mu ne laa ilaha illa allah mu ni ko qul laa ilaha illa allah mu ne laa ilaha illa allah ba muy ñetti yoon yonente bi jox ko loxo jaayante caag moom loolu la tariqa bi dese suñu la mayee werd te doo jigéen ñu jox la loxo mooy symboliser jaayante ba yàlla ni yadullahi fawqa aydihin jaayante boobu da loxo yàlla nga ca bokk na ca فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عهد الله عليه فسنؤتي أجرا عظيما بو فيري di ngoo bi naan wàcc naa tariqa bi defee ni sa sa sëriñ nga koy def fekk sa bopp nga koy def gedd naa saxirullah gedd naa laa ilaha illa allah gedd naa nasir alxaq bilxaq sa affaire la yaa cay dee ba dee dalli ca jant bi mënee su ko ngoo bi ba du xëy feeñ cheikh kenn mënul ci moom dara maanaam li may wax am na keneen ku ma joxati dëgg am na keneen ku nu joxati dëgg xam nga kan la fadilati Cheikh Hadji Abdoul Aziz Sy Dabakh nee na fa munkiran ki nga xam ni dafay weddi xisba cheikhi Cheikh Ahmed Tidiane ak kuréelam bi nee ko xis yu ko sa torox te bàyyi ni feeñ na di nga torox ba ne tot in chita bu la soobee saddiq dëggalal wa illaa bu la soobee it fa mut nga dee bi daa imtihaani ci feebaru doyadi bañ tariqa bi day tax a doyadi tax na kër tàkk ci nit ba mu jeex tàkk moom njaboot bañ Cheikh na Ahmed Tidiane ak tariqa bi tax na kër tàkk ci kaw nit ba mu jeex tàkk te loolu avant première la ndax Cheikh ku ko bañ diine jee tax nga bañ ko cheikh kuko bañ gem sunna tax nga bañ ko kuko bañ defar nit tax nga bañ ko te defar nit dafa am ñuko yalla may sunu goor gu bax ga pap alxaaji mansour ibnu cheikh haj malik mas wax tib ci suuf ci te ni ni defar nit ba mu egg ci yalla day yombe na man ni tib tibb suuf si yombe te ni ñi ak mom xam nañu loolu seigne moustapha si jamil neena ma alaaji cheikh kamara ngi tok bilaal kan a ngi toog mu téyee ci sama loxo ni ma sëñ Habib ma ne labbayka mu ne ma sam pap Mansour radiallahu anhu suivre na benn branche ci wàllu yàlla kër gi moom doo nga ko ci suivre moom doo nga ko mas a suivre siir ko ma ne ko branche ba ban la mu ne ma jëflanteeg nit ñi ci sa jëmm te jëflanteeg yàlla ci sa xol déglu de sëriñ Moustapha Jamil nee na ma sama pap Mansour si branche ci wàllu yàlla kër gi moo ko ci mas a siiwur te moo ko mas a siiwur réussir ko ma ne ko ban la mun ma jëflanteeg nit ñi ci sa jëmm te jëflanteeg yàlla ci sa xol ma ne ko looloy lan mu ne dafay solo ba boo ko séenee teg ko buur waaye ragal yàlla ba bëggul lu dul yàlla nee ma dem na ci jaamu yàlla ci jagsaaw nekk ci benn yéen ma ne ko luy yéen mu ne ma néeg bu amul xadd fa la naan déng moom Pap Xaaji Mansour naaj wi di naaj ci kawam ngelaw li ngelaw ci kawam taw bi taw ci tawam muy weccarle turu yàlla yi dem ca ba mujj ñu dégg ko muy xaacu nan yàlla rijal allahi xubbu laysa si wallahi rabbu lan tanaalu lbirra xata tunfiqu mima tuxibbu ci la dem ci la dem ba mag ñi mu jëfanteel ñëpp xam xam nañ koy Pap Mansour jamono dafa metti suma ma bëggee wax ñu defe ni kii toog a tax waaye billahi wallahi tallahi yàlla tax billahi wallahi yàlla tax defar nit dafa am ñu ko yàlla may dajale nit ñi jox leen ñu lekk yomb na jox leen ñu naan yomb na fexe ñu dégg arab yomb na waaye ñu jub te dootu ñu dëng dafa am borom من كو جيلي سي بايام سيد الحاج مالك رت النفوس لدين الله تربية إبليس ما ابتسمت منه المكايد ممكتنا كتمان بايا مرد النفوس لي دين الله تربية لك إبليس ما ابتسى مت منه المكايد العاج منصرنا من علينا بشيخ والد رحم بر عاطوف غيث منه تجويد تربية لك إبليس ما ابتسمت بني دفل اللي من علينا بشيخ والد رحم بر عاطوف ريف منه تجويدا كما دفلني من علينا بشيخ والد رحم بر عطوف مغيث منه تجميد من تردان رد النفوس لدين الله يتدلل إبليس مبتسه مت منه المكان منصرنا أنا إني أبوح شكر القلب واسطتي من وإن عجزت للإيفاء تعديد رد النفوس دين الله تربية لك إبليس ما مقبل الماج منصورنا يا نجل عثمان يا سعد المريد ويا من عندهم رجعوا والإحسان والجور تنوب سالي لله تربية لك إبليس ما بتاسى مت منه الماء قد دفلني زينت سنة من لولاه ما برزت شمس النار ولا بدر ولا أور فيدا سنة من لولاه ما برست شمس النهر لا بدر نار الموت شرون كل الإشارات صارت كالنار فما ليل شكل خاب العنوم تريد يندى سناته من لولاهما برزت شمس النهر ولا بدر ولا حج منصور لنا كل الإشارات صارت صارت صارت ليلي شاكن خاب العنوم تريد يندى سناته من لولاهما غابت شمس بدر الله منصورنا لكل الإشارات صارت صارت صارت ليل شاكب قابل عنه مطرور سلة من لولاهما برزت شمس النهر ولا بدر الله منصورنا فهل بعجز امرئ هي عن عبده قطرات الوبل عار في وبلي تجاويد سيلقى سنة بل ما برزت شمس النار لا بدر الله منصورنا البستاني بيلي بات ستري في زمني خضرا كأني في الأقران داوى تزين دا سنة من لولاه ما برزت شمس هوا ولا بدر حج منصورنا فرض على الابن شكر الوالدين وموضع والد البر يا أستاذ أجمل ثرنين فرض على الإبن شكر الوالد ثم يا مولاي والد البر يا أستاذ رت النفوس جسنا بيت بي أستاذ إبليس بيت بدي وارنا نكت تجت جمي أمول الصلاة nit dana yaru ni tekk tekkeeral tey topp ba nit dana ni tekk tekkeeral ci tooginam ak waxinam tey topp bakkanam kanam bakkan moo mat a tàggat moo tax Pape Hadji Mansour ni Cheikh Al Hadji Malick li mu yitte woowoon mooy tàggat bakkanu nit ñi foofu laa bëggoon ñu déglu ko mag ñi dafa am ñu ko déey moom Maodo ni ko dañoo bëgg nga taal jihaad ndax yaa doon Cheikh Umar te Cheikh Umar dafa doon jihaad Sidi Hadj Malick ni dégg naa ko ñu fàttali ko ko mu ne dégg naa ko ñu fàttali ko ko mu ne dégg naa ko bés rek muy taw ci njël Hadj Malick jóg ci biir taw bi ak sedd bi dem jàkka ja gisul kenn mu noddal boppam gisul kenn mu liqaamal boppam julli sëlmal tàllal ma daanum wasifa wasifa moom kenn toog fa ba yoor yoor mu wàññi ku ñëw woo ñëpp dajale lu xew naa ah, xanaa taw beeg sedd bi moo tax ñëwunu mu ne ah, bali ndox ku muy dàq bu balu fetal ne tëf nga abal nit ñi Maodo jihaadu nafs lay def moo tax bokk na ci lu ab sëriñ war a xam ñi koy tàccu te bokkuñu ak moom pas-pas ak ñi ko gëm te egsiwuñu ci moom ba lim mën a dox mënuñu koo dox boo ko jaawale rek juum si ne xajmaa yi dafa ñëw di tàggat bakkan yi ndax sa noon yi bi la ci gën a jege mooy sa bakkan bi rasulullah yi nee na aada aduwika nafsuka allati bayna janbayka ne sa noon yi noon bi ci gën a bon mooy sa bakkan bi xajmaa yi nag tàggat bakkanu mag ñi ba ñu bëgg yàlla te dootuñu bañ yàlla dëkkmal yàlla te dootuñu jox gannaaw yàlla bëgg Cheikh Ahmed tiijaan yi te dootuñu bëgg lu dul moom sell te dootuñu sell di Pape Mansour ni ko ruttan nu fuu sax xaw ma kan waaye yow bàyyi tàggat nga bakkan yi tarbiyatan ak yar waaye yaa ngi leen jëme nag li diinillaahi ci diine yàlla waaye jëme woo leen ci sa bopp de xam nga lu tax ud'u ila sabili rabbika sunu borom def ni rasulillahi wotel ba ñëpp wisi la waye joxañ leen sa yoonu borom bi néew ko joxañ leen sa yoon de sa yoonu borom motax tagat nga bakani li diinillaahi jëme leen ci diine yàlla iblisu mabtasamat neena ko yow yow sidi El malik man sa dom Serigne Mansour ma ngi lay jaajeufal ci liggey bi iblis man na soccu waye du muñ iblis man na soccu waye du ree dañoo daan jàngal nit Tiwaawan ba mu mën a jàng ñu entraîné ko ci jikko ju rafet xamoo ne li fekk sa sañse bi gën a gula sa jikko ju rafet xamagoo xew fii yeeg sa sañse bi sa jikko ju rafet gën la gula ko xamagoo lu xew boo xamee lu xew dëgg lu sa sañse bi rafet rafet fu laap mën nga fa egg suuf waaye sol naa mbub moo xam ne nii foog ñu teg ma ca kaw ndem foofu nga tollu départ ago xamoo ni yow yaa valoriser mbubb mi te boo dee ñu futti la dugal ci suuf bàyyi fi mbubb mi te li ci garaaw nit ñi seetluwuñ ko moo di sàng néew sàng néew xamoo baséris mën na ko def baséris mën na ko di surtout bu weexee teg waaye comme da ngaa dee jëm alaxira doo yàq koppar yi moo tax ñu yemale la ci perkaal <laughs> ملكان لي لي مال اكبر كان بازي ريش بو يختال لكاي باخنا واي كوم متر 6000 لا تا يو دينغ دو في يقتي كوبر كي دال لا خاص رك يوبو كون يا غنا شير جيم جي تا يو لي لي دفر موي جيكو جو رافيت موتا ليغا سول لوم ري ري ري مانا لا ايغ سوف لاب سي الحاج مالك فوف لا جارالي مات ني امول مات مو ري سي الحاج مالك امول مات مو ري امول مات مو بيو امول مات مو خيادي amul mag mu télléeral amul mag mu raataloo amul mag mu rajaxo amul mag mu rambaxoo buloo ne nit bu jikkoom rafetegul nit bu jikkoom rafetegul lu julli-julli demagul lu woor woor demagul lu azaka azaka demagul lu aj màkka aj màkka demagul ndax yooyu dafa war a fobeeri jikko ji tudd yàlla nag sa xol la amal rapport loolu moo tax tariqa baax déglu leen tudd yàlla sa xol la amal rapport yont yàlla ibrahima dafa xëy rek ni rabbi arini kayfa tuxyi lmawta yàlla wan ma nooy dekkale ku dee qaala bala قال أولم تؤمن به قال بلى يلا نيكو داغا گمول ني دي ديكي امنا موني اها كاي ولكن ليطمئن قلبي دما بڬ سما خول دالتي كون دونك ماغا دون ترامبل ليك ليك موني امنا ليك ليك موني امول خول بي نك ديم غوغو موي ديم اك ديلوسي موم لا بڬ مو فيكسي سي بن بر سوي بارام نيكو كون نك فخذ اربعه من الطير فصرهن اليك كون جابال نينتي بيتش nga tojate len mélangé leen ñeenti xeer la wër xeer wu nekk da ci teg benn saam te woo leen Cheikh Al Hadj Malick nee na ñeenti picc ya Ibrahima rayoon ko amee seen jikko doo yegg ci yàlla. tan tan moom la Ibrahima ray baaxoñ jàmb jóob ganaar Hadj Malick nee من لم يطر عنه الطيور الأربع فروحه إلى العلا لا ترفع نينا كو خامني نينتي بيتي يوي генول سي سيارام با سيت ويتش سين جيكويا نينا دو ييغ سي يالا النصر والطاووس والغراب والديك راعيها عداك العاب لأننا كالنصر والطاووس في الأكل والزينة بالمقياس كما لنا حرص الغراب وكذا شقوة الديكين فلتراعي المأقذة شيخ الحاج مالك كوخ ينكو او بيتيو يلونجي كو من التند ففقلي كون طريقة بكوتي نك بل بق لك بم اوب لغاي مستوتي موتا سيني هادي توري دفعن بينا غان رايل كو خارتات كو رير مو رير رير رير منيو منيكو رير نغا بسور مني واو منيكو سور نغا كل مني واو منيكو چوي دفنو لبان دي yaa ko def lu bon suur këll ci jullit biir ñetti parti lañ koy séddale bii dañ koy lekke bii dañ koy naane bii dañ koy noyyee bi ñuy lekkee nga jàll yóbbaale ba ñuy naane ndox mi ñëw amul place noyyi gi di fat fatal feebara ci daal di to moo tax si da xaaj maali ni jikkoy tan baaxul fukkale lay def nee na baaxoñ dafa xér lu mu am ne ca kanam nit ku xéer baaxul bala nga ko euh, sit nag di di teral ku xéer loo ko jox rek mu ne ah jaajëf de waaye li nga yor jeexu fi nga ma dolli finalement sëñ Babacar Si radiyallahu anhu nee na day nekk baadoola ñu ne amu ah, ne loo ko defal rek du la sax gërëm danaan yeyoo naa ko de daa ko yeyoo baaxooñ dafa xéer xaaji Maalik nee na jàmb jóob dafa rëy dafa orgueil bu ngelaw li ne fay fay fay rek mu yëkkati laafi nit ko xamni fo dem rek ni xog na jànk baba baxul si da xaaj may ne ganar dafa salte tek ci nit nak bu xéré fukle salte reuy tek ci xawma ma dana demaa jënam di doy du neex a dëkkal ñeenti picc yoy la Ibrahima rey saam leen ñeenti sam ci xeer yi ko wër récupérer bop yi yor baaxoñ yàpp jóge fale yàpp jóge fale yàpp jóge fale dajaloo ba ne ñum jële ci tur yàlla walakin li yatma inna qalbi moo tolloog allah bi dicrillahi tatma inna alqulub واذكره يذكرك فردا أو لدى ملأ لا تنسى ربك في سر وإعلان الحاج منصور الله طلع عنه ولم يقبله سيد قبلا والقلوب ينقل كفرنا أبدا ملئ لا تنفر بتكفر وإعلان بيتي بي بلا ما كو فيري da ngeen di def iltisas te mooy ngeen fotosu ba tànt bi daanu ma door ko firi رضي الله عنه وارضاه عنا به والله واذكره يذكرك من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملئ ذكرته في ملئ خير من ملئه طبعا جمانسوني واذكره يذكرك فردا رضي الله تعالى عنه وارضاه عن النبي إدريس abada ma in sikkar turu yàlla moo am daraja yàlla ne fazkuruni azkurkum tudd leen ma ma tudd leen tudd leen ma ci wéet ma tudd leen ma ne ci wéet tudd leen ma ci mbiir mbooloo ma tudd leen ci mbooloo mu gën mbooloo ma ngeen may tudde yéen Pape Alhaji Mansour ni wazkurhu tuddal yàlla fazkurka yàlla tudd la aw la mala in wala nga tudd ko ci mbooloo yàlla tudd la ci mbooloo لا تنسى بالفتح ربك سبرم يو جانبي في سر تلو نبوة إعلاني أكل فين نفان فمنسو نفوتو لدي يكني يالاني في لتلحق الركب والايام ضيقه ومن توالى يفت الخير يا جاني لتلحق الركب والايام طريقة jëm ci yàlla ay gaar la jëm ci gaar la ak ay rapport nit yàlla yi daañu ne jàkk nit xam ni mi ngi ci maqaama sàngam su ci jógee mi ngi egg ci maqaama sàngam bu deewul yegg ci maqaama sàngam bu deewul yegg ci maqaama sàngam mu ne boo bëggee dem ci yàlla wa amalil isa ala isa mooy gëleemu mbéy ñu ni ko looy tuddee fii gëleemu mbéy mu ne li ngay war ba dem ci yàlla bi ci jëkk mooy jikko ju rafet jubal yow ci bopp xocc dëggul teg ca bàyyil fen teg ca bul xiir teg ca sellal teg ca muñal teg ca maandul teg ca moom ngay bëtte nag fay xal falaa gott yu yaatu ya bayna anjaadin wa gaytaani nga war waruwaay yu mën yaa daw te mën a waaxu ñu ne ko lu tax mu ne xanaa xamuloo ne adduna dafa gàtt te kat wa man tawaana ku doyadi yafutul xayru yiw dana la faat yaa jaani yow mu doy yow tooñkat bi Pape Mansour ne ne ku doyadi yiw yàlla dana la romb te doo ci jël sa wàll جزاكم الله خيرا جزاكم الله خير بس اسمع كيف الدنيا أفق أفق طب منصور نين خقل واي قولل أفق قولل خقل وما هذه الدنيا ديت adduna bii bi daaimatin muy lu sax dàkk wa ma hadihi dunia siwa kadarin adduna bi naxit kepp la potit rek la tazawat minha nee na wutal yóbbal ci addina bi oxra defare ko sa alaxira zaada musdaani boo yeggee ci yàlla da nga dooleeku taar ku yàlla gërëm wa inna daar al axira la hiya al xayawaan alaxira mooy dund ga afiq xayra mixtaariya gis nga àddina bala laa coono jàpp ngay waxante ku bëgg àddina dangay wax ba sonn mu meebuwaat gën a bëgg ci àddina te àddina kat soo ko bëggee bis bu xëyee moom gën laa bañ dafa mel ne timis ñëw na de dañ leen julli ak ndigal Seydi Aboubacar wax ne kenn ku nekk na toog palaasam te bàyyi jaabante bi photographe yi bàyyi photo yi bàyyi njaayum carte mi bañ pare fii tabaarakallaa ñu rafet rekk fi nekk buñ ci boolee nag di seetaan photo yi booy boonu faf tëri mu ne nañ mottali liggéey bi man nag dama xamul bi ñuy julli fan laa toll woonati bi ñuy julli ji fan laa toll woon ok ah ok àdduna loo ko bëgg bëgg bëgg moom bis bu ne mu di la gën a bàyyi waa koy bëgg rek te moom mu di la gën a bañ te ngaa sàkk fexe jëf yi lu mu bari bari bari bari bari bari ak luñ ko mën a tudde te yàlla kese kese taxul yàlla diguñu ci ak pay ma bëgg a wax lu gàtt nag li ma bëgg a wax moo di adduna bi ko yàlla moomee daf ko tëral ci ñeenti kenn ñeent ñooñu na kenn ku ne sa yëfi moroom nga jël dugal ci sa saak dem ak moom defe naa li may bëgg a wax mat na seetlu de àdduna yàlla daf ko bind teg ko ci ñeenti kenu ñeenti kenn yooya benn kenn bu ci nekk jël sa yëfi moroom dugal ci sa saak dem ak moom te li fekk joxoo ko ko àdduna du bouché du ngeen ma laaj ñeenti adduna bi ko yàlla bindee mi ko teg ci maanu teg buur mooy benn kenn bi xam-xamu borom xam-xam mooy ñaaru kenn bi ndimbalu aji am ak ñaanoog aji ñàkk ñeenti kenn yooyu moo tungoom àddina doonul damay wax de rasulullah yay wax سيدنا محمد نانا قوام الدنيا بأربعة أشياء كان يينو أدنا نانا نيانتي كانو لا بجك بي موادي علم العلماء خم خم برم خم خم كون برم خم خم بو مي دم بان كانو لا تي كانوا أدني بو نبي لمو خم ولا مو ناي خم مو باراليزي الأدنى ñu réer ñépp moo leen ko yóbbi benn ñaareel ba moo di saxaawatul agniya ki yàlla dénk koom-koom ba pare mu tabe xamoo ko yor lu ne doo joxe dara lu yàqu ci àdduna sa loxo nga ci biir li ma njëkk wax du dëgg joxe bee la gën a yitteel xëy na sëñ bi damaa firi bu njëkk bi mu ni ma ñëw ci bu ñaareel bu ni ma boobu doom dëgg bu wér ping bu njëkk bi nag saxawatul aghniya ñu yàlla jox koom-koom ñu tabe seen tabe ga rasulillah yi nee na mooy benn kenuk adina xamoo ko tabe daf koy yëgul waaye fu mu jógee ñu ñaanal ko fu mu jëm ñu di ñaanal ku tabe boo tukkee ñi nga daan dimbali naan yàlla na nga ñibbiseeg jàmm ñi nga naan na exide ak jàmm ñi nga bokkal avion bi naan na la yàlla yóbbu fi nga jógee ñaan ñi nga àndal di ñaan fa nga jëm di ñaan mën nga fa yàgg moo tax rasulillahi ni ku tabe jege na yàlla benn jege na nit ñi ñaar jege na aljanna ñett sori na it safara déglul de nun nag liñ tudde tabe ak tabe du benn de déedéet ku la romb nga may dix mille te alal ji atal te doo azaka tabe woo dof bu civilisé nga ma ne ku la romb nga may ñaari junni alal ji atal nga lànk ne doo ko génnee azaka tabewoo dof bu siw liise nga di wut ku la jey rek alal bu ci ak yàlla génnul loo ca defati neen la zakat dafa mat a bàyyi xel te man li ma jaaxal yemoon bu ma ci senegal société buy def inventaire ni dañuy génne azaka yi jullit yi moom ak yépp a ci yem te xamuloo ni societé boo ko ubbee yow borom fond bi ak ñuy liggéey ñaar ngeen yàlla nee na bokk naa ci société bi ni fi kenn warul ana thalithu sharikayni yàlla nee na ñaar ñu ubbi société ñu ne ñetteel naa leen maa lam yaxun ahaduhuma saaxibahu nee na li fekk kenn ci ñoom ñaar warul moroom ja société bu atal ay julit moom ko lànk ba a génnee azaka ja continuer liggéey di dem war nañu yàlla ca santaaneem moo tax société yi day fayit rek cooway bare rek waye ku ñu mën andi mën ko rek le mbir mo génne ak yàlla yàlla rocc loxom te yàlla lu mu rocc loxom mu tassal azaka na ci julit ñi ba xel aji màkkata génne wa azakat alal ji atal may biye màkkata do azaka tabax jàkkata do azaka xana xamone yi ya ko def ci sa ciobare bop te azaka ji yàlla ni nañ génne nangam jox ko ku melni ku melni ku melni ku melni ba ñu ñet innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina alayha wal muallafati qulubihim dem dem dem ba ca wa fi sabilillah juroom ñet nit yàlla naan joxal ki joxal ki joxal ki joxal ki nga lànk tëdd ci azaka joju te la ci garaw nak waaye da lay dab naan imaamul xaramay ni nga naan nga naan dama bëgg rasulillah de te doo génne azak foo ko bëgg ku bëgg rasulillah da ngay jëfandikoo sunnaam njol makka ba mu ne al mar'u ma'a man ahabba daf ni wa man ahabbani kana ma'i fil janna daf caa teg ni man ahya sunnati faqad ahabbani ki dundal sama sunna moo ma bëgg li ci des bëgg wax la kon tabek tabek way tabe yi ci pilier yi yenu adina la moy ñaarel bi xam nga ñettel be modi da'watul fuqara ñi amul dara dara dara dara seen bu bi gàtt te waya waaye buñ ne allahumma rek yàlla nang te ñol màkka nee na rubba ashaatha aghbara madfuun inda al abwab law aqsama ala allah la abarra ñena bare na ko poussere ñak solo woyof lol bu yegsee ñu nan ko bal ñu way ba benen te lu mu ñaan yàlla nangu te mi ngi ci biir gaañi te xam xàmmee woo ko ci rang bi te duñ leen sóoraale te yàlla nee na xàmmee naa ko ci rang bi sayiduna muhammad dafa woo abu zarin ni ko nag xam nga diw mun ko xam naa ko kooku fu mu waxee ñu déglu ko bu yagsee ñëpp yaatal ko ku mu jabar nga may ko che kooku bu doon ci jamono bi bëgguma wax waxin dañ naan waaye gérée la jol màkka ni mu ne ko ndax xam nga diw tudd ko keneen mu ne kooku da taxul ma miin ko ñool màkk di ko ko melal di ko ko melal di ko ko melal ba mu ne ah mooy kii jullee ci koñ bi fii ci jàkka ji mu ne waaw mu ne ko taxuma ko miin ñool màkk ni ko kii nga miinul gën gi mu gën ki nga miin mi ngi mel fi jant bi fenkeek fa muy soxe loo ci man wala ولكن أبغض الوجوه كما تدرون bari na foo ko foogee te du fa bari na foo ko foogewul tamuy fa kon fonkal mbindeef yi yàlla yépp yàlla leen bind te yàlla du cuune kon lu mu defar loola baax na alxalqu kulluhum iyaalullahi ahabuhum anfaauhum li iyaalihi rasulullahi nee na mbindeef yépp njabootu yàlla lañu ki ci yàlla gën a bëggat mooy ki ëppaat njariñ ci nit ñi kon ki ñàkk amul te buñ ko dimbalee mu ñaan ñaanam ga mooy ñetteelu pilier àddina xam nga ñeenteel be mooy di àddilul umara maanu teg buur rasulullah yi nee na walaw yi la akala naasu baaduhum baadan kama yaakulu dibul xanam nee na bu buur bu maandu jógee ci àddina nit ñi di lekkante comme ay jën loolu egsi na bu buur maanduwul société nit ñi daal di yem ak société jën yi coof la muy def jarañ rek ki lépp doole def la ko ñeenti ñooñu nag kenn ku ne dangaa jël sa yëfi moroom dugal ci sa saak ni mes boroom xam-xam bi jël xam-xamam di ko commercer bu ñu ko wooyee ci ruq rek jox ko chèque rek mu falsifier benn laaya ne gaa yee ko déggul rek foog nga modéré xam nga nit ñi booy wax sunna doo civilisé ci ñoom booy wax sunna doo civilisé ci ñoom dañ daan dafa nàndul wala ñu daal di la traité naan orthodoxe la wala ñoo intégriste la mais noo ko nekkee alquran ak sunna nga wax ko ñu naan dafa nàndul nànd amu ci gëm rek walla nga weddi waaye gëm ba pare yàlla ni nii la nga naan pourquoi mënul am benn nga gëm yàlla ommatu ci li yàlla wax nekk julit wala nga nekk yéeféer nekk yéeféer waaye nekk ci digg bi ku ne nga bëgg a ànd moom nekk diwlin togg bu ñëw nga bokk ca mënul am mudabdabina bayna dalika laa ila haula wala ila bokk fii doo bokk fii mënul nekk ah yow moomu ñàkk it waroon xaar ba ñu dimbali la nga ñaan nga dogi feem yow it dem ca médecin ba bind la ordinance bu dul jar mukk ordonnance boo xam ne njël gu ne nga ñoox ko kenn mu seet ñu dem ba dat bi paase bu ci yàgg waaye dana la jox njëg gi doo ko xàmmee waat nga dogalewaat ko joxaat ko dogalewaat ko joxaat ko kii dogalewaat ko joxaat ko kii waaye lii ba kañ lii du sotti kat feem feem baaxul de aw fen baxul boy wax waxal ngir yalla soy jëf jëfal ngir yalla xamoo ni moom nitu yalla bi bo ande ak mom te yalla taxul da ngay perte da ngay perte am na ñoo xam ne ak serigne bay poos jaral na len lu nek dañu dem dend ak mom di mag magal mag pis photographe mu ne ray ñu def ko ci seen poos eh, mag ma serigne duñ caqali way jubóog serigne baxna way waaye jubóog ak yàlla jubóole ak yàlla gis nga ma keroog maa góor gi bi ñu génnee télé boo génnee góor gi tele te yàlla jéppile la nag njëriñ la la njëriñ la la boo àndeeg nit te yàlla taxul dangay ngay perte maa ngi lay jox tegtal yonent yàlla Isaa alayhi salaatu wasalaam dafa doon def lu ñuy tuddee siyaaxatu touriste day doxantu gaddu benn mbuus def ci ñetti mburu benn xale ni ko taraw liis ni ko damay ànd ak yow mu ni ko foo jëm mu ni ko damay wut yàlla te xam naa ni nitu yàlla nga mu ni ko mbaa yàlla képp képp la tax a jóg mu ni ko yàlla képp ma tax a jóg de yéen yàlla isa ni ko bu yàlla taxul di nga ko ndax ànd bu ga day jege ay cënu dem dox dox dox ba xiif dab leen yàlla isa tekki mbuus ma génne ñetti mburu ne xale bi lekkal benn bi lekk bi ci des ni ko bi ci des garder ko nu économiser ko nekk xale bi suurul ñun ci yàlla isa ni ko ma dóor fi ay rakkaate ñëw rek xale ba ni mburu wa fuuf lekk ko mu jeex takk ñun ci yàlla isa dellu si ni ko ana mburu wa ma la dénkoon mu ni ko lekk nañ ko ku ko lekk xaw ma ko xamoo ko te ma joxoon la ko Ah, xaw ma ko de jël nañ ko boobu nekkuma fi lekk nañ ko man si baax na toog benn picc naaw tiim ko mu woo picc mi ci turu kawam ismu al dafa am ismu nazil am turu kaw dafa am turu suuf am picc mi naaw di romb boo xamoon nu mu tudd boo ne diw rek mu wuy si waaye ñàkk goo ko ñàkk xam moo tax nga naan picc muy fërërëri dem parce que waxoo ko su ma nee nit ku may wuyu waaye bu ma nee góor jigéen ñi xam ne bokkuñu su ma nee jigéen góor ñi xam ni bokkuñu bu ma nee mag am maas gu ma wuyu su ma nee ndaw am ku ma wuyu bu ma nee moodu am ku wuyu picc yi noonu lañu amee ay tur ismu al dafa am ismu nazil am mu ne picc mi diw picc mi ne barak barak barak ñu teg ci loxo bi mu rocci paakaam daal di rendi rendi ba pare suqi butti ba mu set mu raxas taal lakk ba mu ñor mu jox xale bi ñu ko lekkal xale bi lekk ba seeñ mu jël yax mag magal maasale ni ëf picc ma ni fër naaw tiim ko mu ni ko ci kattanu buur bi ma xamal lii ma def lii wax ma ko lekk mburu wa xale ba ni xaw ma ko xaw ma ko xaw انت يا عيسى انا خموكم لا من بخنا يلا بخنا واخر الدقم المونتاج مي جيل بن خير دور كو سي مونتاج مي رك مونتاج مي تيسر مو راي كو رك ليپ نيك اور اور ماسيف مو دال دي سام نيتي سام ني بي سام ده ماكو موم مان بي ياكو موم ياو بي سي ديس والو كليب مبروا خالي بني مانا ماكو لك مو جاك تاك امين سمي لهم إيه. وتاكلون التراث اكلا لما وتحبون المال حبا جما وانه لحب الخير للشديد نت دفو بغ علل نت دفو بغ علل منام لك خولال خاوما كوكو لك ليغي ni royal le picc fessal la jox la nga rampli te yalla ke muru yi nga ne xawmako wurus kep genn nga ne man te jogu fi ba legui de yonent yàlla Isaa ni ko yow a mu ne waaw mu ne ko kon nag jëlal wurus wi yëpp ndax ànduñu woon ngir yàlla xale ba dem di wuti saaku bu ma sol wurusam Isaa teg fi muy sole rek ñetti bari sa waay looy def fii damay dajale sama or moomoo ko de ah maa ko moom kay waaye tegal fii or bi sëpp sëpp leen dóor ba muy xar-xar la dóor ba dara desul lu may dee ju bàyyi ko foofu daal di réunion ñoom nag nit ji alal nag ku ko yàlla jox dangay jëfandikoo jëfandikoo bu teey waaw alal ku ko yàlla jox ok sëñ bi yaay jaari tàmbee du bu bàyyi alal ci caar yi nee na mi ngi lay nuyu sëñ bi nee na mi ngi lay fay waaw dégg nga de ji alal ku ko yàlla jox dangay ngay jëfandiku jëfandiku kan ñu ne kon nga sol wurus wi nañu wuti lu ñu lekk nag bu ñu lekkee ba suur këll naan ba màndi seet nu ñu jële wurus wi ñu ne man son bàyyi kaay ñu yónni nga dem jënd li ñu sandis fële ci sopprime génne xaalis jox Mansour mu dem ba fële mu ni koppar wurus wu day ñi di ko bokk loo yàlla tere te gaa yi xam ni maay waaja sandwich bi jënd poson def ci sandwich bi laa jënd poson def ci dem jënd ay sandwich jënd yàpp jënd poson rokkos ba mu fees dell mu takk di ñëw ndeke gaa ñi réunion nañ gannaawam ne waa ji kër bu mu ñëwee bu ñu yoon nañ ko sàkkal pexe bu yegsee nañ ko rey waay moom du bokk Mansour yegg seeki sandwich am ñu dóor ba mu ne laaj ci tëdd deegu yàgg waa ji jëkk ji ba ma ngay xar-xarle deegu ñu lapp Mansour ci waxin ba Mansour sedd guy ñoom it ñu jël sandwich yi lakkal di dee biir yi neew yi waa ju jëkk ji rek des di xar-xarle yéen teel a Isaa wàññi ko yegg si nuyu waa ji waa ji fay waa lu la yóbbee ni ko dañ maa dóor ba may bëgg de dee gaa ñii nag mu ne ko xanaa yaay seen bopp de yéen teel a Isaa ni ko xam may chance mu ne ko déedéet mu ne ko ànd gi nga ànd ak man tamay yonentub yàlla te sincèreul sax ci nga amee lii bu sincèreoon nga mucc alaaji malik nee na wa faza man bàyyi alawliyaa misla a bàyyi alan bi sidi malik nee na ku jaayanteeg wali yàlla te muy dëgg ci yow texe nga comme ku jaayanteeg yonent ya jaayante na sidi xaaj malik te duñu xàcc kenn bareewu ko pexe kenn réewu ko àlluwa duñu jënd kenn ak Maodo الحمد لله نوني ياتر سون خول دي خاجو ييب گم نني انما المؤمنون اخوة تي طريقه لا نبوك شيخنا احمد التجاني موي سيرين سيرين سي لول لا يالا دوغال ما ني بغا تيج تان لم نيخنا واي دودون تا خام لو لوتاخ واخ متنا سيتلو راديو اك تيليفزيون باغي خيوي با ليجي تي لا اكسيدان واخ يي گنا باري ndax rajo dafa neex ñu jox la ko ngay rajaxu rek yor rajo ba di rajaxu rajaxe dëkk bi te doo ko yëkk te shahwatul kalaam danaa dégg si di bakar ne dañ ciy muslu te mooy bànneexu wax yàlla ñu yàlla gàttalal suñ làmmiñ wala buñ demee bay wax yàlla ñu wax lu dëppoo alquran sunna sun góor gu baax ga fabalaji mansour làmmiñoo dafa toon ba ñu sës ci moom daan ko ci yedd mu naan leen wakkam laamani baadul ahibati ani sukuuti والسكون وما السكوت السكوت خوف وجزاء إلا أني رأيت إذا لم يبق في الدين من بين الإخوة غير المعارضة والتهت والمخاذفة والمشاحنة والمعاصمة فصمت فرارا من الشيطان ومن كل ما يثير نار العداوة أحسن وأخلق وأطيب وأليق في خاطر كل من ذر بعيني بصيرته وبصره من رد بعض الأقوال التي لا أصل لها إلا من قيل وقال وقلما سلم مكثار أو أقيل له العثار وقال الشاعر صمت يؤديك إلى الصلاة أفضل من نطق جنى الندامة وقال العافي بالله الشيخ الحاج مالك رضي الله عنه وكونوا دائمين الآخرين على سكوت فأمر الله خير من قصام إذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من إجابته سكوت góor gu baax la yal na yàlla yokk leeram Mansour ñoo bokk ndey ak bàyyi moom la ko sama papa tudde may waxtaan keroog ci tud tëngéej ba tudd turandoo mu nekk ci xaal ni ma foo ko tuddee ma jox la junni ma di ko seetlu rek ñu dem mu ne ci xaal nan ma pastor xam naa ne nit ku doy waar la sama xam naa nit ku doy la parce que li ci gën a garaaw mooy nit ñu nitee ñee ko gëm ma ni ko yàllaa ko baaxee école de Hadj mu juddee ci jànge ci yaroo màgge ci doone ci Mansour Serigne Babacar magam ju baax ja Mansour Mansour min indillah Serigne Mansour si na Hadj Malick ndigal ndimbalam ak ndigalam directement ci yàlla may ma ma daaneel Mansour mbooloo mi asalaamaaleykum maratan saniya maa ngi nuyoowaat maa ngi yeesal sama cofeel ci diine jë tariqa bi di yeesal sama dénk ci Sidi Aboubacar si yàlla lim may dénk li may mata di yàlla na ma yàlla dimmali ba ma defe ko ni ko yàlla bëggee defe ko ni ko yonent bi bëggee ñeel ma sama làmmiñ ba li ci yàqu ñu mën ko réparer ba ma bañ cee wax loo xam ni day doon aw njaajaay yàlla lépp nekk jaamu la te way yi ak fitasu yi ak popularité ma ci dugal yàlla képp dugal ma ci yàlla képp bàyyi ma ci yàlla képp saxal ma ci Seydi Abubakar na la yàlla may fanu gudd may la wér defal la ko bokk yépp defal ko julit yépp